Sénélec société nationale d'électricité bu Sénégal ak 3MD énergie ñoo leen di may seen revue de presse jàngeen jëf faatuk Mamadou Moustapha Ba mooy li fës ci yéene kaay tey réew mi quotidien fësal ci xëtam bu njëkk nataalub ki nga xamante ne moom lañ fi dénkoon wàllub finance mu ànd ak njiital MEDES di Mbagnick Diop mu mel ni dañuy fàttali ndam yi nga xamante ne kon ministre Moustapha Ba am na ko cérémonie yu mujj yi nga xamante ne mouvement des entreprises du Sénégal daal na koy amal te moom ci wàllu boppam mu jiite woon ko moo tax nag ki fës lool ci patronat bi di Mbagnick Diop di ko delloo njukkal ak sargal ci biir yéenekaay bi le témoin nee ñu mëmadu Moustapha Ba dem na mu nekk ab ba tax la soleil yéenekaay gis ni Sénégal ñàkk na nit dëgg bi nga xamante ne ràññee nañ ko rawatina ci wàllu finance gi mu doon yëngu yéenekaayu an bi di ñu fàttali ni kon Moustapha Ba bi nga xamante ne ca Nioro la juddoo démb la wuyu ji boromam gannaaw wopp bu gàtt bi ko daboon ca diwaanu Paris làkkoon na nag lu toll ci juróom fukki at ak juróom ci biir le soleil national njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye daal dinay fësal tiisam ak njaaloom ci njaboot gi kii mu wuutu di président Macky Sall tamit rafetlu bu baax liggéey bi nga xamante ne kon moom Mamadou Moustapha def na ko ci wàllu xarañte waaye tamit ci wàllu xam-xam témoignage u Macky Sall ak ki nga xamante ne moo ko wutu ci pale ba di Bassirou Diomaye fay fës tamit ci yéenekaay bi di la quotidien di ñu xamal ni Mamadou Moustapha Badal daal dinay ranger ay dossier am ni ki gannaaw tis li nag jàmm ak njëriñ jël nañu dogal daal di dakkal seen campagne Amadou Ba mi ci àddu nee na moom dem si yàlla nekkoon na ab fonctionnaire bi nga xamante ne ngir gis ku ko gën a xarañ lu jafe la l'observateur ligganti ba gis ay message yi nga xamante ne moom Mamadou Moustapha Ba daal na koy envoyé laata muy dëddu àdduna li mu nekkee woon ca Paris ak li mu doon waajal sax dellu siyaat ci biir réew mi yéeni kaay groupe Futur Média bi dikkaat na sax ci jaar-jaar bi nga xamante ne moom doomu ñooro bi am na ko donte nekkutoon nit lool mënta trahir li nga xamante ne moom la ñu duppee ay secret ndax li mu xamoon ci état bëri na lool li mu denc ni ay secret ak li mu liggéeyal Sénégal moo tax enquête ne réew mi daal ñàkk na dëgg ab om d'état li koy firndeel bokk na ci om politique yi ay jegeñaaleem ba ci sax société civile ñëpp nangu li nga xamante ne moom mooy melo kaanam mu mel ni moom Mamadou Moustapha Ba anam yu mu faatoo ca France gaaw na lool jaaxal tamit ay mbokkom ba tax nee ñu dañuy sàkku yëfi leer ci anam yi nga xamante boo moyul mu ñàkk élection législative yi ñu dëgmal Sud Quotidien moo ni njort ndax nee na moom njiitu réew ma woon nga xamante ne campagne am yëpp ca biti réew la koy defee ci jamono ji moom njiital APR mu ngi ci vote à suspense Thierno Alassane Sall moom li mu nekkee weesu na suspense ndax l'observateur dafa gis ni dëgg la nekkagul mag ci wàllu politique waaye mu mel ni moom jëriñ ja ñàkk na xeex bi ca ba muy teel yéenekaay bi dikk na ci li nga xamante ne moom la taas am ni ay avantage waaye tamit li nga xamante ne moom mooy ay limitam wàllu politique donte lu muy bàkkee boppam bokk na ci valeur lu bees ci dossier violence bi ñu nemmeekoon ca Koungheul ci campagne électorale bi le témoin di nettali fi enquête bi tollu jamono ji yéenikaay bi xam ne ni kon juróom benn doomu aadama jam nañ leen ci baaraami tuuma teg leen loxo société civile nag jamono ji dem na wàllu ji ki nga xamante ne mooy Malick Gakou mi ci jëlee woon ay gaañu-gaañu libération moom am na li mu jëlee ci coowal cargaison de fer bi nga xamante ne dañu ko ko ni kon ab bi nga xamante ne jege juróomi milliard ci suñu koppar bi nga xamante ne ay société ak ñi jege woon lool nguur gi wees ñoom ñoo ko saax-saaxee li ñuul ci dossier bi yëpp Libé daal dina koy fësal tey Les Échos fësal beneen coow bi nga xamante ne moo topp Waly Diouf Bodian ca port autonome bu Ndakaaru moom njiit lu yees li amatina beneen dogal bi nga xamante ne jël na ko mu ñeel ay ndàmpaay wala sax gratification annuelle yi nga xamante ne daf ko fas yéene dakkal wala wàññi mu mel ni neexul benn yoon syndicaliste yi équipe bu Sénégal u mu def démb neex na lool li ko waral réew mi sport di ñu xamal ni démb la jël final UFOA A bi ci kanamu Mali gannaaw teg yi juróomi bal ci ñeent ci biir jongante bi nag réew mi sport di ñu xamal ni ñaari équipe yi dañoo temb woon ku ci nekk dugal sa morom ñett record di ko ci feelu ne gaynde yu ndaw yi démb moom wane nañu ni ñoom ñooy buuru Afrique sowu jant ci tournoi UFOA A bi jàngeen jëf Sénélec société nationale d'électricité bu Sénégal ak 3MD énergie ñu leen doon may seen revue de